yéenekaay yi El Hadji Ousseynou dal leen jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne rek moom lañu xëyandoo yéene kaay yu bëri dem joxu ñaxtu bii nga xam ne rek moom la doon amal yéene kaay gi dañu xamal la ko tàmbale université ba egg fi nga xam ne rek moo di Médina foofee mbooloo mu bëri laa mu takku daal ñoo wuy soo ñoo lànk ñoo bañ kaay gi duñu xamal ñoom kay la xeex moo di yokkute courant gi nga xam ne rek yokk nañ ko ci réewum Sénégal waaye tamit xam ne rek démb kay askan wi laa wax ñoo wuy ji woon maanaam daal ànd ci xeex bii nga xam ne rek waa ñoo lànk ñoo bañ moom la doxale di ñu kay di jamono ji njiitu réew mi Macky moom kay nii nga xam ne daal noonu lay doxale war naa soppi doxalin laa wax maanaam daal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum démocratie gi ñu mel maanaam daal gii nga xam bu fekkee ne dañu koo téye jàpp ne daal moom terroriste la jamono ci nañu jàpp ne réewum Sénégal ñun ñëpp ay terroriste lañ ndax ñoo bokk benn xeex boo xam ne rek moom la xeex enquête yéene kaay di ñu xamal démb kay réewum Sénégal daal war a nañu fippu waaye tamit cofeel gi nga xam rek am nañ ko ci Guy Marius Sagna yéene kaay gi xamale moo tax daal askanu Sénégal ma ñoo lànk ñoo bañ heure bu ñu wootee askanu Sénégal daal di koy wëy yéene kaay gi dañoo xamal ne ci yéene kaay gi dañoo ak lu mën a xew daal Sénégal daal daanaka xeex bi ñoo ko bokk ñoo bokk benn xeex laa wax bu ñuy xeex askanu Sénégal ñii ngi bëgg a deelax Sénégalais yi dañoo sonn la ba noppi nag ñu ne na kenn du ko wax ak lu mën a xew doxu ñaxtu bii nga xam ne rek moom la ñu doon amal moo raw laa wax rii ñoom tamaate ak bisaab bu xonq maanaam daal foofe morso yu xonq yi feesoon na fa del askanu Sénégal génn nag fësal seen ak naqar waaye nag am na ñoo xam ne bëggoon nañoo yàq ndaje ma yéene kaay bi ñoo xam ne ñoom kay dañoo jekki-jekki xeer yi dàmbalee di bàyyee ko fu ne maanaam daal ruubi googee nga xam ne rek noonu lañ ko amal ñoom daal seetaluñ ci ñi nga xam ne rek moo di étudiants yi nga xam ne ñoo nekkee ci APR Vox Populi di ñoo xamale ñoom kay ñenn ci ñoom jàpp ne loolee bu amee sabotage goo xam ne rek dafa bàyyeekoo ci préfet ak ñi nga xam ne rek ñoo di police leneen loo xam ne am na ci réewum Sénégal nuru sabotage yéene kaay bi di libération daal rapport gi nga xam ne rek jëm la jot naa génn ci réewum Sénégal loolee kay dafay wone yorin gu bon goo xam ne daal war nañ ko réewum Sénégal ak doxalin gu ñaaw ca jamono jojee le solo yéene kaay kaay nga xam ne rek yëkkati na du neex ci moom grand place yéene kaay nga xam ne rek moo di Kër Massar ak Malika foofee kay boo moytuwul du dégg marxaban maanaam daal kenn du ko fa dalal laa ñu dal ci yéene bi di la tribune te jeexale ko yéene yéenekaay gi du ñu xamale réewum Sénégal ñun laaw maanaam walekkum ceeb mbaa duñu ko bàyyi yéenekaay bi dañu xamal lu toll ci téeméer ak juróom fukki ton ci ay ceeb boo xam ne baaxul kenn xamul ceeb boobu lu doon la ñu teg loxo maanaam daal way takk der yi teg nañ ko loxo tey nag réewum Sénégal li nga xam ne moom lañ fay teg loxo ci waanam daal lépp loo xam ne jëfandikoo na ci wàllu lu bon bari na lool yéenekaay bi laaj ci noonu laay jaare tàggu leen ba lundi incha